xasut wax la loo xamante ne wax ju bon la kon moom bu toogee à leur moom war nag consommer Sénégal dafa baaxoo kilifa boo xamante ne day muñ mel na président Macky Sall bu nekkee njiit te mënoo muñ say fee dëmb nekk fii ne wang ñun xam nañ ko ñu ngi jógee ba Fatick fa lañ xëyee ñëw Ndakaaru soutenir Bah Diakhaté ak Imam Ndaw ñun nag yow nekk ay opposants fiers d'être fiers de l'être ñu créé benn groupe WhatsApp tuddee ko opposition engagée Euh, monsieur Ka mu ngi sama ginnaaw moom mooy le président Tom mi doon wax léegi nii moom mooy le porte parole euh, Joli Cœur nekk euh, la trésorière man mii maa nekk le secrétaire. voi voyez ñun nag jóguñu pour yàq li ñu fi def parce que ñu ñoo ko liggéey nit ki doo liggéey ba mu rafet nga mer ñëw di yàq ñun meluñu comme waa Pastef du ñu saaga ay kilifa diine du ñu xas ay kilifa du ñu fenal nit du ñu yàq ay gor du ñu rey ay nit. Ousmane Sonko fi nga toog milité woo ko en tant que premier ministre parce que tu as passé sur pour ab nguur dañ ko waxta dee. d'accord. voilà ah ok d'accord ñu jël Moussa Sow voilà moom